bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs ñu ngi ki nga xamante ne moom mooy Legacy euh, bu fekkee noonu laa ko prononcé alors muy manager u Siteu depuis les États-Unis euh, Californie ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lu yaatoo yaatu ci li nga xamante ne si la Siteu di yëngu ni mu koy manager mm, li nga xamante ne moom mooy MMA et cetera ak fi nga xamante ne si la ñu jëm. muy euh, mois de septembre bi le 8 septembre open press bi buñ ci jógee ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy combat bi combat bi nu ñu def ba taxawal ko également ci wàllum pay-per-view yi am na lu ci ama am solo lu ci nekk euh, wax na ma sànq ni c'est le premier lutteur bi nga xamante ne am na euh, propre plateforme forme plateforme am pour moi. mu nekk loo xamante ne lu ama am solo la ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñu yaatal léegi maa ngi ziar. maa ngi ziar salaamaaleykum Sénégal maa ngi ziar ñun ñëpp. Eh, naka mu nag. mais olof bi leer na de. waaw leer na kañ nañ nañ nañ nañ na doomu Sénégal la nga nekk Californie alors mën nga ñëw wax tuuti kan mooy Legassi. man euh, bi ma comme ni ma la ko waxee Sénégal laa juddoo mu amee 12 ans ma génn Sénégal ma dem Amérique yàlla may ma ma nekk Amérique ba léegi maa ngi am 29 ans soo jàng naa lu bari foofu gis naa fa lu bari mais suñu cosaan ak suñu culture moom laa yóbbu foofu tamit mu topp ma. so léegi man bi ma demee foofu gis ay euh, système yoo xamante ne gars yi xeexkat yi ñu ngi ñu ngi nekk si nouveau yoo xamante ne fii xeexkat yi war nañ fa nekk xam nga si laa waxee sama bro Siteu ma ne ko gis nga fii doo fi ñëwee gars yi nekk si kaw ñoom ñëpp duñu sa morom da leen di rey <laughs> da nga leen rey incomprendre soo léegi foofu laa ko waxee nag xam nga man moom nu waxtaan si ma ne ko mu ñëw fii ñu liggéey ma ne ko ñëw Amérique nga nu liggéey si affaire MMA bi moom mu gëm boppam am courage am fitu gaynde mu ñëw def lu mu def moo tax nu toog fii nii. mu ñëw def li mu def alors nga nekk États-Unis 12 ans nga jóge Sénégal toujours ngay continuer di suivre euh, culture Sénégal lan moo tax. ah bëgg sa dëkk nga doon xam nga mën a kon ni nga ko waxee ni doo bëggee xam fi nga demee foo nga xam foo jógee. yee te doo xamul foo jógee doo mën a xam foo dem yaa ngi comprendre te man fu ma jógee mooy sama lépp samay nit mooy sama lépp te yaa ngi comprendre te bëgg naa suñu mbokk nii tubaab yi di def ba am la ñuy am ñu ñu def loolu am la ñuy am tamit xam nga ay nit gënuñu xam nga gënuñu am ñoom gënuñu am fierté gënuñu am espoir bi xam nga so waaw alors Siteu nekk champion boo xamante ne mu ngi Sénégal di toj donte ne daan na dem États-Unis lan moo la gën a neex ci Siteu wala lan moo la gën a impressionné ci euh, Siteu ba nga ne ko da nga koy attiré foofu. Siteu Baye Fall la première fois te Baye Fall doo liggéeyee Baye nga nekk ak Baye Fall danoo free te nit boo xamante ne dafa free xaalis ak leneen tiitalu leen te si business ak si liggéey si lépp looy def. dafa ñoo xam te ne xaalis mooy tax nu liggéey am ñoo xam te ne gëm-gëm am ñoo xam te ne gëm si seen bopp am ñoo xam te ne dañoo am valeur si seen bopp xool si seen bopp ne hee dama bëgg yokk lii si man egg fii pour man ba pare représenté si sama dëkk c'était mooy Baye Fall boobu xam nga du nekkoon si ñeneen ñoom ñu ngi si xool si ay leneen ñu ngi kii mais c'était dafa gis ñu nekk si kaw moo wax ko man a man gëm naa yow fii mën nga fi egg moom mu xam ne moom boppam mu gëm ne mën na fi egg ma ne ko acca bismillah ñu ngi si yoon bi ñu dem te si liggéey bi kon doo liggéey ak Baye Fall comme ni ko waxee Baye Fall nekk nit boo xam te ne dafa wàccee boppam te day ñafe te loolu ma gën a neex si moom nit boo xam te ne wàccee boppam ba pare di ñafe loolu nit doo wàccee bopp sa bopp nga xëmbal yàlla dafay nekk yow ba doo si boole ak ñafe bi amul dara loo mënul def amay dëgg te moom mooy nit boobu alors si te ñëw Californie nga yóbbu ko ci euh, je sais pas euh, staff euh, staff bi nga xamante ne bëgg nga kaa booleel wala team yi nga xamante ne si la mën a compétir mm. alors gars yi bi biñ ko gisee lan la ñu wax. waaw gars yi du ma la fende danoo jombi woon ndax bi ni gisee première fois suñu coach bi moom cinq fois champion du monde la si monde bi yëpp. ba pare hall of fame la mooy ñi gën a ngand gën a noon si xeex bi gën a am valeur def lu bëri xam nga dañ ko si bind moom. te léegi moom bi ma ko wanee sëta moo ko làmba bi fu mu jógee suñu cosaanu maam yi lu mu fi teg mën na ko gis nga suñu champion bi day xeex si suuf dañuy xeexee nekkul ay ring ñu ngi si suuf sans gant da pare gis nga ñu muy xeexal xeexalul ay gaynde la dafa dem jëli ñeneen ñu ëpp am fitu gaynde na jox ma kële ñu ngan na ñële ñi nit ñi kii jox ma leen yee loolu mentalité boobu noonu du ko amee si suñu biir waru ko am si biir tubaab yi ka moo si gën a fort ne leen ah soo noonu lañ ko gisee nag. alors entraînement bi ñaata temps la def ba ngeen wutal ko combat nee na ma laps de temps la. <laughs> yàggu woon sa noonu même pas ay semaine noonu. mais est-ce ko woon di jéem a sacrifier suñu sunu champion tamit jàpp ko rek dugal ko ci noonu ci bagage yi. ñun danoo gëm suñu bopp gëm si moom du fekk gëm-gëm. du ñu amul woon gëm-gëm si moom du ñu toog fii sax di wax si deuxième xeex. du noonu mais nga confiance ni premier combat bi da koy gagné. 1000 pour cent ñu tegal ñi gën a sax si Bellator bi léegi nii ay ay organisation yu ngand yi man yaakaar naa si sama bro ndax ku am ñafe-ñafe di di di ñafe chaque jour gëm si sa bopp yow bro sa defe si yow la sa victoire si yow la da doo préparé wu keneen préparé yaa ko jox victoire mais ki nga xamante ne dafay préparé préparé boo xamante ne yow ñeme woo ko préparer ah te kooku tamit mooy Siteu wante la man moom noonu nekk ñu entraînement deux fois par jour dem si matin bi ñu def ay muay thai si ngoon bi ñu def boxing def ren coach wala journée bi mu dem jiu-jitsu suba nu ngi si leneen dem daw ji mais dafa yeew di daw ji tamit da nga daanu gis ay mbër yu bëri di daw. six kilomètres lay daw tamit six kilomètres. du mm-hmm. génnee nii dem daw ji six kilomètres ñëwaat. te daf koy man moom nooy ànd. te vidéo yi sax mu ngi si online te daf koy def sans problème te ni nga ko gisee nii moom ma gën a gaawee moom ma gën a jàpp forme si daw bi. donc bi mobilité bi foofu am na fa am na possibilité déplacé wu nu ko neexee. waaw waaw. mu ngi fa foofu comme ni ma la waxee ñun yàlla moo nu téye te xam nga danoo nekk environnement boo xamante ne ñu ngi focus si lu ñuy def gëm si lu ñuy def ba pare préparé wu si lu ñuy def. mu jëm ci combat bu ama am solo le 28 mu war a dajeek Euh, incha allah ak benn champion bu mag est-ce que mën nga ñoo wax champion bi muy dajal mooy kan. moom ku muy dajal mooy Karl Culpepper. Karl Culpepper fu mu nekk nii dafay xeex ñoom ñaar pour ceinture organisation bi ndax ki mu amoon kooku noonu mooy téye woon ceinture bi. moom ki mu mu wanoon dafa amoon benn tubaab mu wanoon xeexal kooku gaañu avant kii bi. léegi organisation bi kooku dafa ne dafa gaañu mais sama yaakaar rek xam nga mooy noonu. ah <laughs> loolay xalaat Sénégal loolu loolu si yéen la ndax man du ma la fenn doo gisee vidéo premier xeexam bi nga gis ni mu defee gàmm boobu si 14 secondes ba pare ki mu doon xeexal tamit moom mu ngi doo xeex si organisation yi ngand yëpp ba pare ñu nar ko kii ah man de loolu laa yaakaar mais léegi Karol Pepe moom moo ñëw ne dafa bëgg jël xeex boobu pour champion du monde boobu si organisation boobu moom a ba pare moom defar na sa ay vidéo dinaa cité yow maa ngi lay xaar ma ne ko yow doo xamoon li lay xaar ma ne ko du la cité jàppee nga naan ko maa ngi lay <laughs> Sénégal yëpp dinañ seede loolu septembre 28 Sénégal bëgg naa incha allah ñëpp ñëpp ñëpp ñu yore portable ñi nga xamante ne sax ordinateur loolu yëpp ngeen dugg c'était officiel point com ngeen seetaan suñu tarkindaa bi lii champion du monde la ñu wax waxuñu xam nga benn xeex bu nekk Sénégal wala Gambie wala Afrique champion du monde ceinture bi incha allah dina si defaat beneen interview wax yow nga téye ceinture bi Sénégal gis ceinture bi ñu wax si ba pare nu xam ne ne hee fii commencement bi la nu ngi doog a commencé dinañ ràññale ay yeneen ceinture incha allah te dina dem si Bellator wala UFC mooy ñaar yu si gën a kawe ñu nu ngi si bunt bi fu mu nekk nii xool ban lañ xam nga mais. si temps bi tamit bëgg nañ jël ay ceinture yeneen organisation dama bëgg a ñëwaat tuuti ci pay per bi hmm? si te nekk première mbër boo xamante ne dafa am propre euh, comment dirais-je stade voilà pay per alors nan ngay def ba dugg ci man mi bëgg nekk Sénégal bëgg seetaan combat bi nan laay def fu mu nekk nii am nga deux choses yi nga mën a def mën nga jënd carte bi si station yi nga xoos ko nga jël code bi nga dugg si sa portable nga dem c'était officiel point com wala mu nga jëndee code bi tamit si Orange Money nga jënd code bi si Orange Money ngeen ñëw ngeen seetaan suñu champion bi septembre 28. alors base cherul. 4000 CFA. 4000 CFA nga gis lu ñuy def fële américain yi loolu jar na ko. ba pare suñu tarkindaa bi daf ñuy représenté. waaye Sénégal lañ siy jug jour boobu. lañ siy jug 1000 pour cent ndax c'était xeexam suñu xeex la. est-ce que comprendre nga gars yi du waxee africain ñun ñëpp la ñuy waxal du ñu waxee sénégalais ñun ñëpp la ñuy waxal so du téye drapeau bi dem foofu di dóor ñu ñëpp a dóor est-ce que comprendre nga ma waaw. est-ce que ci site bi plateforme bi. à partir d'aujourd'hui man su ma jëndoon carte bi dugg ci xoos ko est-ce que lan moo nekk ci euh, euh, ci plateforme bi loo xamante ne man duma ko gis euh, benn site du ko wane lan la entraînement site ngi fa lan ak lan lan laa fa mën a fekk avant combat bi. fu mu nekk nii avant combat bi li ñuy def si plateforme yi mooy dimanche le 8 incha allah ma ngeen dugg si plateforme bi ngeen xool open press bi. ñi nekk Amérique ñi nekk Europe ñi nekk fépp africain mbooloo yëpp ñi nekk ci monde bi. doon la bëgg seetaan presse conférence bi presse ah, ah, ah, training bi dimanche ngeen dugg c'était officiel point com ngeen seetaan lépp. d'accord lu ama am solo la suñu émission euh, mu ngi waaj a jeex euh, xanaa rek euh, ma laajte la tuuti par rapport ak mbër yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi wala sportif yoo xamante ne bëgg nañoo def li Siteu di def nan la ñuy def bu ñu bëggee participer. fu mu nekk nii ñu ñu ngi liggéey ak benn benn deal boo xam ne nu ngi ko bëgg def ay compagnie nekk fële. nga ah, teneen comme ni ñu ko waxee xam nga xeexkat yi nekk fa dañ leen di indi fii mbër ñi bugg ñëw représenter seen dëkk ñu bugg ñëw wane ne hee làmb dafa am doole te ñu danoo gëm suñu bopp nu kese naa si làmb la ñuy toog ñooñu guerrier dugg si cage du xeex américain wala leen ne hee suñu maam yi nekk lu woon ay tapet suñu maam dana doon xeex sans gant est-ce que nga comprendre te loolu duñ ko defee loolu dañuy wan ne ñun suñu cosaan cosaan boo am dëgër la lamb mu ngi si Netflix Netflix moo gën a ngandi si àdduna bi si affaire streaming mu ngi fa te da nga ko teg si sport boo xamante ne mooy kat bu gën a dangereux si monde bi gën si foor dama nga xool ko gars yi dem la ngeen xool ko te loolu mu ngi si fighting words si Netflix te loolu du fa nekkee si Netflix mais ñu lan la ñu wane si lamb bi la def si monde bi c'était mooy premier astafurlah am na ñoo xamante ne ñu ngi doon kii si MMA mais c'était mooy premier. bu koy teyee international ba pare téye suñu drapeau international te loolu ku ko si bañal comme ni ma la ko waxee nekkoo tarkindaa te bëggoo sa sa mbokk lu baax lu koy avancé la non amul comprendre ndax nit mooy comprendre dundam ak lu baax pour moom nit du gisee dara lu baax pour moom ne moom si lii lay nekk lii la focus ndax gis na lii moo baax pour moom te dina si indi ñeneen ñoo xamante ne lii yoon la siy teg kon mbër yi nga xamante ne ñu si bëggu léegi loolu yoon la jeune boo xamante ne da doon jàmm jàng bëri kese léegi dañuy jàng bëri di jàng ay wéq di jàng lépp dañuy formé wu cent pour cent complète nekk nu xeexka bonte ne bërki làmb kese la noo xam dañuy nekk complète si nga may comprendre waaw maa ngi leen di ziar maa ngi bëgg di bëggee encore te damaa bëgg septembre 28 képp kuy tarkinda képp kuy sénégalais képp ku fier nekk africain nga dugg c'était officiel point com nga supporter suñu frère bi nga supporter suñu tarkindaa bi mooy sunu premier champion du monde in allah te bii mooy commencement bi te fii lan lañ ko waxee ku si toog si ginnaaw seetaanu ngeen toog si ginnaaw seetaanu ku àndax ñun nag ñu ngi lay bégee te di nga xam ne hé la meg fier ndax ñun ay sénégalais leen. a ko ci kii bi damay seetaan keroog premier combat gis. waaw gis nga Bakou si te di day dugg di bàkk kañ. waaye américain yi dañoo jaaxle naan kuy fecc ba pare di ñëw door nit <laughs> ñoom ma suñu xam loolu. non xam nga gars yi dañuy ñëw di becc dañuy ñëw di xeex dañuy ñëw ak seen ñàngal yi di wane ay ponkal leen ndax yooyu yëpp waaye nu la wanoo booy bi nu muy dugg ak kii woom bi ñun dañoo ñëw di dugg di fecc xam nga mais gis nga lu xew wala loolu mooy suñu cosaan merci loolu mooy suñu cosaan loolu dugg wan suñu maam yi lu ñu doon def ba pare wan na la hee suñuy esprit maam yi ah ak lu ñu jàngal seen natural te doon si yokk leneen yaa ngi comprendre soo yee soo macha allah bëgg naa incha allah septembre vingt ma leen ko waxee Sénégal yéen ñëpp ngeen dugg c'était officiel point com ku si raté nag raté nga lu graaw li histoire lay doon premier ceinture. premier ceinture champion du monde te fii mooy commencement bi incha allah dina indi yeneen te di ko seede jërëjëf waay maa ngi leen di bëgg gars yi. mbokk yi euh, mu nekk lu ama am solo alors lenn laa leen di wax yéen tamit mbokk téléspectateurs yi fépp foo leen mënta ne ngeen nekk bitim réew ngeen nekk biir réew foo leen mënta ne gars yi dem leen site officiel point com euh, li nga xamante ne moom moo moom ngay fay pour seetaan bariwul dara mille francs la. 4000 francs la alors prix boobu la ñëpp di ko jëndee à partir de euh, je sais pas dimanche incha allah le 8 boo ko jëndee di nga mën a seetaan li nga xamante ne moom mooy open press bi également ci biir plateforme bi di nga seetaan yeneen baax baax yi nga xamante ne Siteu dana ko def peut-être sax mbokk yi danañ leen woon sax euh, entraînement am yi euh, ni mu yeewoo ni muy préparé woo foofu ca États-Unis ba jouru combat bi en tout cas daw leen gaaw jënd seen code am ngeen possibilité jënd ko ci yi possibilité daal di ko jënd ci li nga xamante ne moom mooy Orange ne site officiel point com mu nekk fierté boo xamante ne fierté Sénégal la fierté làmb la ñu leen di jox dig daje très bientôt ci beneen numéro Voxo Arena peace